nationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. SeneInfo. internet yi ñu bàyyi xel ci seneinfo.net ak seneinfo international ñu ngi leen di nuyu fas leen defal dënk ba xibaar tey samedi di 14 janvier 2023 ñu tàmbali kook xibaaru biir réew mi. ñaar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo moom bis yooyu nga xam ne ñoo defoon accident fële ca six kilo ba sax lu toll si ñeent fukki nit ak benn ñàkk ci seen bakkan ñu bëri am ci ay gaañu gaañu ñoom nag yoon teg na leen loxo démb sax lañu taxawoon ci kanamu procureur bu Kaolack ñu leen di toppee nag ab jàggante jëmale ci bakkanu doomu aadama wante itam euh, sax euh, yeneen i mbir yoo xam ne def nañ ko te dëppoowul ak li nga xam ne moom mooy code dala route fi mu nekk nii nag kon euh, ñu ngi leen teewandi mercredi nag kon lañ leen war a jébbal li nga xam ne moom mooy procureur ngir mu àtte leen bu Sénégal nag dogal bi mu jëloon ne day aaye porte bagage yi ci oto yi nga xam ne kon ñoom ñooy def transport loolu nag dellu na ca ginnaaw nee na nag dina leen may at at boo xam ne kon dinañ mën di way di ami porte bagage wante nag ñu ne dina nekk porte bagage yoo xam ne la ñuy yëpp euh, ci du dépassé daal li nga xam ne moom mooy cinquante centimètres ci guddaay bu dee nag euh, ay sept places wala oto huit place ñu ne it euh, bu fekkee yeneeni xeet oto yoo xam ne la dañuy def transport public di yóbbu ay nit yëpp ba ñuy yëpp warul dépasser li nga xam ne moom mooy soixante-dix centimètres dëmb nag ab jiyee moo am fële ca port autonome bu Dakar ñu ne nag ak lakk boo xam ne dafa am ci ab bateau boo xam ne kon dañ ca doon amal ay liggéey daal moom moo mujjee ci ak nit boo xam ne kon ñàkk na fa ab bakkanam mbir ma nag mu nga amee ñu ne ci mool dix bu port euh, ci nag euh, ab bato bu ñuy woowee docteur euh, de d ka nga xam ne nag moo see ñàkk ba kanam ñu ne ab xale bu góor la bu am 19 ans dëkk fële ca Géejawaay xibaaru Afrique eh, dañ koy eh, tàmbaleek eh, mbirum coowal diplomatie bi am diggante raba ak Alger loolu nag dafa mujjee wéy ba ci espoir bi ndax nag équipe marocain bu local bi nga xam ne dafa waroon bokk ci championnat d'Afrique de nations fële ca Algérie ñoom nag mujjeewu ñu dem li ko waral nag mooy ba ñu demee ba aéroportu Maroc foofule ca Rabat Salé di laaj nag ab autorisation de vol pour daal mën a jël avion dem foofule ci Alger ñii di réew Algérie kon daf leen ko bañal ba tax kon Maroc duñu bokk ci boobule championnat ambassadeur u Amérique bu Soudan moom nag ma ngay woo ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom la ñuy woowee kon groupe euh, réfractaire muy nag ay way xeexkat yoo xam ne dañoo nekk foofu le di xeex ak li nga xam ne moom mooy euh, nguur ga ñu leen di woo nag ngir ñu ñëw bokk ci waxtaan yi nga xam ne kon ñu ngi ko fay amal gannaaw bi nga xam ne nag fi mu nekk nii euh, ñii di soldat sax dañ fa amaloon ab coup d'état woote boobu nga xam ne nag ambassadeur kon Amérique foofu la ci Soudan mu ngi koy woote. ñu ne nag dafa bëgg a indiwaat ak euh, déggoo foofale euh, ca dëkk ba euh, te it ñi nga xam ne daal ñoom ñooy ñooñu la di way fipp yi dafa bëgg kon daal ñu bokk ci li nga xam ne mooy waxtaan yi ñuy waxtaan ngir jàmm mën a amaat foofale ci dëkk boobu de di Soudan. xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleeg réewum Chine foofu nag ñi nga xam ne ñooy autorité dañoo xam xamle ne daal ci diiru ko benn weer lu toll ci soixante mille personnes. faatu nañ fa euh, te nag euh, li ko waral ñu ne euh, jàngoro yi coronavirus la ñu ne loolu nag mu ngi am gannaaw ba ñu tegee kon ay mesure muy ay tere yoo xam ne dañ ko tere woon jëmale ci boobu la jàngoro ca mujjanta ga kon ñu ñu teggi yooyu la tere ñu ne nag kon ca la loolu am wante nag doon na chiffre boo xam ne sax communauté internationale ñu ngi laam-laamee ndax dëggu nam déet ci Kiev nag ba tey bi ñu ne dañ fa dégg ay explosion ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi nekk guerre ak waa ñii di Russie kon foofu le nag ca Ukraine muy capital ba Kiev bésub tey bi ay bombardement daal lañ fa xëy euh, dégg loolu nag euh, tax ba nga xam ne sax moom mooy euh, njiital Turquie di wootewaat daal ab cessez le ci diggante kon ñii di waa Kiev ak kon waa Russie euh, ngir ñu amal kon ab cessez le euh, ndax nee na moom dafa jàppale daal lii di guerre bi muy Ukraine ak Russie kenn mënu ko caa gañe xibaaru sport lañ koy jeexale gannaaw bi nga xam ne nag ay weer a ngi nii ñu koy waajal euh, équipe Sénégal bu local bi bu sub bi la war a jouer matcham bu njëkk ci championnat d'Afrique des Nations bi am fële Alger mu war ca nag jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy Côte d'Ivoire ki nga xam ne nag euh, moom mooy seen entraîneur ba di Pape Thiaw ak i joueur am ñoom daal li ñu bëgg mooy match bu njëkk bi ñu mën koo gagné ndax sax ñu mën a am confiance ngir li des ci compétition ba lu leen tey ci xibaar seen teewlu di jox dig daje altine jaa ngeen jëf.